gars yi ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay euh, fan yi nag xam naa gëj ngeen ñoo gis du dara nag euh, temps yi ak manifestation si suñu mbiru frère bi ñu génnoon fan yi passé dëkk bi xawoon sedd lool euh, mu tombe nag xam nga ak moment wu grippe bi rek donc lolu mo taxone vraiment ngeen gëj ñoo gis dañoo xawa nek li gaay américain di ne under sous the under the weather manam sous le temps voilà dañoo xawon jaga di tuuti rek waaye incha allahu rabbi euh, dinañu ñëwaat nak xamna suba ak doole suba dans l'après midi dinañu ñëwaat ak doole inshallah rabbi parce que ñu wara waxtane dafa bari tambalé ko ci suñu japp frère Pape ala bi ak euh, kii nga xam ne moom mooy Pablo Escobar muy général Moussa Fall il a passé à la vitesse supérieure maanaam Sénégal xame ñu fi woon ay rey nit waaye ba mu ñëwee ba léegi léegi nit ñaa ngi leen ñu ngi rey ay nit euh, nit ñaa ngi disparaître mi ngi bëgg a yëkkati guerre civile loolu moo taxoon Macky Sall indi ko ci réew mi c'est pour mu taal Sénégal c'est pour mu yëkkati guerre civile Sénégal euh, waaye Sénégal du tàkk Sénégal du am guerre civile voilà dañuy ne doomu sénégalais rek ngeen focus 2024 légui mu jot digënté légui ak 2024 nak lu ne dinañ ko ci jëm wayé nañu def ndank rek lu jot rek yomb inshallah rabb ginnaw lolu aussi fan yépp ñu ngi déglu affaireu biram souley Diop ak ki nga xamné mom moy suñu frère euh, euh nané Amadou Ba ben clan xam nga man mom am la layam layame benn clan la boo xam ne ñoom ñoo dajaloo ci réseau sociaux yi ñu taxaw rek ne tembe ils vont faire la guerre à Birame Souleye Diop pour céder la place te erreur la parce que ñun kenn xamewuñu loolu ndax ñun liñ ñu xamee mooy dox dëgg mais loolu benn clan la rek clan bu ndaw la te yéen xam ngeen seen bopp vous vous connaissez xam ngeen ne ci li ngeen nekk mënta changer Sénégal lii ngeen nekk nii du loolu mooy changer Sénégal parce que réew boo ko bëggee doxal danga koy doxal ci dëgg fan yii yëpp nag wérgu yaram bi sama jagadi yaram moo ma mayul pour ma ñëw ma wax ak yéen waaye dinaa ñëw incha allahu rabbi suba suba di ngeen ma dégg te ni ngeen may déggee xëy na du doon lu neex parce que dinañ waxtaanee dëgg xam nga ñun boo gisee ñun ñu nekk sax ay sympathisant u Pastef dëgg moo tax mais ay tappale ñun doxuñu ci donc dañu foo focus ba 2024 incha allahu rabbi mais dinaa ñëw suba bu soobee yàlla lepp lu ma xalat ci mbirum biram Souleye job bi ak lepp lu lalu ci ginnaw dina ko wax te sénégalais dinañ ko dégg donc bu yeboo yéen ñi nga xamne da ngeen nekk ci ay deal ak ay clan ak ay tapalé ngeen tak seen ay bagages ngeen xamne suba dinañ ñew te sénégalais dinañ ñu dégg voilà ngeen jéggal ma di ngeen ko dégg ci baat bi soj bi la rek waaye ma ngi koy fajj bu soobee yalla suba dinañu ñew ak doole te dinañ waxtaan ak sénégalais te sénégalais dinañ ñu dégg te ñi wax Macky Sall Liga nga xamne ne nga wajal ni ci senegal li ñi li wolof ñay di wax rek mu ne ku ren di lu way ren di ci ay loxom lay nacc donc xamal ne li ngeen di def ni ci seen ay loxo lay nacc suñu frère militaire bi ak suñu frère gendarme bi bu dee da ngeen leen kidnappé te ñu dund nañu genn ci bu gëna gaaw bu tamit légui yeen da ngeen commencé disparaître lo ay doomu adama xam leen ne lépp ci seen kaw lay mujj waaye Sénégal du tàkk de Sénégal du am guerre civile incha allahu rabbi band yi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a taal réew mi rek ñoom la ñoom ñooy tàkk waaye réew mi du tàkk incha allahu rabbi gars yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ngeen jéggal ma nag ba suba incha allah <coughs> jëggal leen ma rek incha allah suba dinaa gën a jag te bu boobaa bu ma ñëwee dinaa waxtaan ak yéen waxtaan bu am solo parce que dil yi moom il faut mu jeex ci réew buñu né nee réew mii dañ ko bëgg doxal il faut ñu bàyyi tapalé parce que ñun dañoo am ay kilifa bu dee da ngeen né ay sympathisant wala ay partisan té Ousmane Sonko moy kilifa pasteur té mom sa bu waxé rek doomu adamay yi war a dégg waaye j'en suis sûr et certain que fi mu toll nii nekk nañu ay dictateurs yo xamné ci réseaux sociaux yi la yalla xam doyna waye comme ni ma leen koy waxé toujours rek buñu may noni yi lu ñu reetaanee nañu am fulla am fayda ñu bàyyi suñu kilifa yi ci li ñu war a wax ñu wax ci nañu bàyyi kilifa yi boobu respe su fekkee nag amu leen kilifa ngeen wax li nga xam ne moom moo leen neex ngeen nekk ci réseau yi di zëmbale di jaxase carte gi yéen continuer leen loolu rek waaye xam ngeen xel ne Birame Souleye Diop keroog ba muy wax am na ñu muy waxal te ñi muy waxal xam nañ seen bopp man gisuma sama bopp ci li muy wax merewuma ko benn yoon gisuma sama bopp ci li muy wax parce que maa ngi ci réseau yi Mangi campagne te mangi voter Mangi maa bu campagne joté ma campagne bu vote joté ma voter donc amna lo xamné man xamna né ne du ñun la ko adressé ku ci gis sa bop nak ba yow nga yaakar né yow la adressé xeyna da nga wara nga wote ji wala nga génn nga wote waye man xamna né ne Birame on l'a poussé à bout il a fait une mauvaise communication

même bu dee dëkk dëgg bi arrangé wu nga génn nga wax tax gis ci sa gis pour des intérêts personnels taxul clan rek et vous êtes minoritaire ma wax ko vous êtes minoritaire clan bi nga xam ne il est l'homme il est parmi les jeunes les plus pertinents du Sénégal mais son tour viendra son tour viendra kenn ku nek ci ñun waxtom dina jot té sa bu waxtu bi jotee rek inshallah allahu rabbi fi nga wara nek diñ fa nek waye créer ben clan di attaquer nit ki di ko lyncher di ko wax lu ñaaw di ko def lu ñaaw parce que xam ngeen ne ci ay tappale ngeen di dox et vous allez créer un problème voici le problème que vous allez créer di ngeen pousse biram Souleye tay bu bëggoon sax jël temps def nim ko waree loolu doo leen ko may temps boobu moom tey bu génnoon def benn décision boo xam ne tey arrangé wul kenn ci ñun mu bàyyi benn poste boo xam ne ñun ñëpp ñaanuñu yàlla mu bàyyi poste boobu mu bàyyi ko ñu ñàkk li nga xam ne moom mooy base boobu loolu fan lañ koy waxee ngeen di tëlli tëlli rek il faut ñu respecter nit ñi Birame Souleye il est parmi nous Chess, Binko ko Djoko docteur Babacar Diop voici l'erreur catastrophique qui nous a arrivé Birame poste bi mu yor fofu ci ñun ñep xam lan motax mu yor ko ñun mu def ba te parce que fi mu ne sax fi may wax ak yeen fat inshallah rabbi bu traitement Dina nekk à 100% à cent pour cent incha allahu rabbi bu boobaa dinaa ñëw ma wax ak sénégalais yi nañu may nit ñi respect nañu may nit ñi respe te ñu xam ne Sénégal ñun ñëpp ñun ñëpp ñoo ko war a defar waaye li ngeen bëgg Birame Souleye mu def dina démissionner benn poste de waaye ragal naa ne du doon bi ngeen bëgg et vous aurez des problèmes en ce moment bu boobaa gàcce dina leen rey bu boobaa mettitu xol dina leen rey parce que yéen a ko organisé yéen ko ordonné benn clan benn groupe tapalé kat li ngeen bëgg li ngeen bëgg dina du dou du du doon li ngeen bëgg li ngeen di am def len dank nit ñi yéen a nit ñi vous êtes devenus des dictateurs vous êtes devenus des dictateurs du bàyyi poste bi ngeen bëgg te di ngeen am lu len nakari bu boba sen bop yi dina metti sen tati dina tang te di ngeen jaxle parce que li ngeen di def ni ay tapale la ay door ak ay njuñ wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh